sëriñ bi ñoo ngi lay damoo bi ñoo ngi lay damoo sang bi yow lañuy damoo laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أإيوان كسرى هل دهاك وأنصره بروز النبي إن كسرى تقهقره laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah ak kisraa nu sirwaana jaa muhammadun bi aayaatihi alkubraa wa qadruka alabsaraa laa ilaaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أكسرى أنو سروان جاء محمد وهل قطع أنهايا أم هل تفجرا لا إله إلا الله محمد رسول الله laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah akisra anu sirwaan jaa muhammadun وهل قد أتاك الموت بذان مكبرة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أكسرى أنو سروان جاء محمد يرتل ذكرا منذرا ومبشرا في باينس jërëjëfe Baye Niass jërëjëfete Baye Niass ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla yàlla boole jéggal yàlla nañ ko teewee at yu bare bare bare bare at mu nekk rek gën a neex waxtaanu tey wi nag Euh, dañ koy def ci gàmmo ak njëriñal gàmmu gis nañ fi ñoo xam ne sos nañ ci diine ji ñàkkaa julli loolu suñuy wax bidaa loolu mooy bidaa sos ñàkkaa julli amuñ ci téere fiq walla ci téere usul walla ci téere sunna wala ci taarix wala ci mag ñi wala ci taarixu lislaam di ko dalee min aziliyatom ba ilaa abadiyatom fenn fuñ mën a mas a waxee ne kii suufism la wala salafiste la walla euh, moo xam fu mën a bokk foo xam ne ci sunnaam sunnaal nañ ñàkkaa julli ci moom kon ku sos ñàkkaal ci lislaam sos nga lu bokkul ci diina loola lañuy wax bidaa a waaye bidaa amul bidaa siyi a amul bidaa moo am bidaa mooy luñ sos ci diine te yonentu diglewu ko defu ko ku ko def sos nga ci diine te ku sos ci diine laga sos réer la te yow ak loola yépp da ngeen di ànd dem safara loolu moom dëgg ju wér la waaye amaa nag yi hadis wàcc wala yonentu jëf ñu roy ko ca jëf jayit yaatal jëf ja loola duñ ko oowee bidaa loolu taawil lañ koy wax ndax aaya alquran wàcc na ñu dégg ko taawil ko kon segam alquran lañ mën a taawil waxuma laak hadis kon hadis dañ koy taawil bépp bidaa boo dégg ñu ne bidaa bi bidaa xasana la boo wax sunna la suñ war a taawil sunna suñ war a taawil na moom li ñuy waxee bidaa xasana waaye bidaa bi nga xam ne mutlaqan la bidaa mutlaqan la xam ne lenn luy rafet newu ca loolu la ñuy ooyee bidaa si ah mooy bidaa boo xam ne dafa ñaaw boo xam ne ñëpp dàppoo nañ ci ne lii moom yonentu diglewu ko kenn mënu ko utal lay ci kenn mënu te su amu cëslaay mënuñ cee layee lenn loolu la ñuy ooyee bidaa si ah waaye bidaa boo xam ne yonentu moo ko jëf ñu ne fii la ci yonentu yemoon waruñ caa yokk lenn ku ko ca yokk bidaa la loolu dama ne loola eh, eh, ñàkk tawféex la loolu du bidaa sey eh, hasana waaye hadis boobu dañ ko war a taawil ndax ñu mën koo dégg tey nag masala bi nga xam ne mooy masalatul masala gàmmo nga xam ne tey addina bi yëpp tey suñ mbokk yaa ngi takfir nit ñi di leen takk di yóbbu safara ñañ ca jiital mooy ñun ñi yaakaar ñooñu leen yëkk a yóbbu safara tey ñu leen di dugal a safara te ñun ñoon xam nañ ci suñ yaqiin ne ñoom ña nga aljana ñun ñu ci aljana ndax dal gi nga xam ne suñ xol dal na ko ci yàlla ndax alquran moo ñu wax ne allah bi zikrillah tatma'innul qulub tuddu yàlla dafay dalal tuddu lool na ñu yàlla ba suñ xol dal ci yàlla kon ku jël nit ku dalal xolam dal ci yàlla nga di ko wax ne ko yaa nga jëm safara xam nga ne xam na ne moom xam na ne yow moom yaa ne ci safara déjà parce que yow déjà sa xel mi dalut waaye moom kelam dal na parce que moom mu ngi tudd yàlla kon l'islam bi nga xam ne yàlla wàccee na ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi l'islam bu leer la waaye l'islam boobu yàlla def ko wàccee ci yonent bi yonent yàlla yonent yàlla sallallahu def ko mu nekk ilimaan mooy ilimaanu mboolem yonent yi moom la bàyyi wax euh, rasulun min mawla wa aadama lam wa yabqa rasulan daiman wa muhazama bàyyi mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom moo baxee ko ci yàlla waaye moom la yàlla jox moom mooy séddale kon kooku mooy ilimaanu yonent yi yàlla wax ci alquran maa kaana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakinna rasulullahi wa xaatama nabiina yàlla seedeel ko ko moom mooy ki tëj nubuwatu moom xaatimatu bi ci loxoom la nekk kon lislaam mooy diine fa yàlla diine yi yëpp ay seetu lañu woon ci lislaam dañ doon présenter lislaam ak ñëwam waaye seen existence amul sens parce que li lay xamal na seen existence amul sens mooy seen disparition bi am après l'islam bi mu ñëwee moo lay wan ne ñoom ay présentateur rek lañu woon dañ doon présenter yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee dañ leen di effacer ndax ki présenté gan gi su pare day dem toog gan gi jël jotaayam waxtaan jotaay bi ndax loolu feeñ ci suñ jotaay bi tey maa ngi nii di waxtaan waaye am na ko doon présenté tey dugg na ci biir mbooloo mi rangé wu na toog jàpp njàmmuram loolu mooy yonent yi jiitu woon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu indee lislaam bu rek day jotaay bi dee daal di jeex tey fii nii man su ma waxtaanee ba pare rek su ma jogee jotaay bi jeex kon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu lu mel ak yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon diine yi njëkkoon nag yooyu diine du ñu woon ay diine donte yàlla présenté na ko comme diine waaye li alquran wax mooy foofu la ñuy dellu ndax dañuy wax ne ñaar bu ñu werantee nañ dellu ci sunna ak alquran mu àtte leen alquran moo ñu wax ne maa inna diina indallaahi islaam lii na fa yàlla mooy lislaam lislaam yàlla yonentu la yàlla moom saa salaam la ko jox kon nag lislaam boobu nag su ñëwee yàlla dogal ñu indi ñu téere boo xam ne mooy alquran alquran nekk suñu lettre bu ñu yàlla bind wax ñu lim bëgg ci lettre bi ak lim bañ ci lettre bi nga xam ne li ko ci neexal li ko ci naqar yëpp wax na ko li muy fayeek li muy dëelee li muy mbugaleeg yëpp wax na ko ci lettre bi mu leer ñu ñun ñëpp amul ci ñun kenn gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku yàlla yónni ci yow ku yàlla jox alquran da ngay jàng alquran am ci sa dégg-dégg mu am lu mu la tegtal ci yoonu njub ci leer nga topp ko keneen jàng alquran mu tegtal ko lu gën a leer lam la tegtal ndax alquran moo ni mel hadis da nga koy jàng nga am ci sa niveau dégg waaye yàlla wàcceewu ci yow alquran wàcceewu ci yow hadis kon bu yonente alama saa salaam waxee ne bépp bidaa réer la luñ sos la te lépp luñ sos réer la te bépp réer dafay yóbbu nit safara tegtale wut ne ku roy yonente yàlla maama saa salaam ci gàmmoo rek yaa ngi ci réer xam nga ne yena wut maanaa ci xel nga ne yow julit nga fekk ñuy julli ci biir juma nga takk bombu explosé ci seen kaw ñu dee nga wax ni ñi ne julit laa su nit ñi amee xel war na ñoo xam ne yow sa njulit gi ñu lutu lan la ah noonu la mel nag ki nga ki nga xam ne mu ne julit la yoo yaay yow nit kaa nga takk dàllam di dem ci fu ñu koy waxee jikko yonent bi di ko nettali ay jaar-jaaram di ko wax ay mbaax-mbaaxam léegi ñu ne la yow bul dem foofu fu ñuy waxee yonent bi bul dem fi ñuy nettali jikko yonent bi ndax loolu bi daa bu ca dem yow kon ki lay aaye yu jikko yonent bi yow fan la bëgg nekk lu mu bëgg nga tëdd si sa kaw bi di nelaw lu mu bëgg nga dem di wax waxi caaxaan te booy dem di wax waxi caaxaan du ko lijjanti waaye yow booy dem di ci grand place yi di caaxaan du ko lijjanti sooy dem ci xale yu jigéen yi di wax waxi caaxaan du ko lijjanti sooy dem ci nit ñi di def lu kenn xamul du ko lijjanti waaye soo takkee sa tànk rek rek na maa ngi dem ca gàmmu ga pour ñu nettali ma jikko yonent bi rek rek ñu takk rajo yeeg kii rek xaraam bidaa xaraam bidaa ko mais nañ ceet ñi ñan lañ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moo njëkk a màggal juddoom tegtal ñu nuñ koy màggale bés ñëw na mu mu ne tey sama bésu juddu la dama koy oor parce que ci laa juddu woon léegi ñu ne guddi gii kat comme juddu juddu yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam yàlla yonent bi dafa ooroon bés boobu kenn war cee def lenn lu dul koor léegi nag ñu seet loolu euh, faw ñu taawil ko pour nit ñi mën a dégg ndigalal yonent bi woo dama ci bés bii laa juddu woor leen ngeen màggalee ko comme man ni ma ko defee defee leen comme ni ma ko defee loolu soo xoolee soo ngeen def leen comme ni ma ko defee du tegtalewut ne euh, dafa oor rek da ngay woor fa ngay yem loo fekkee ne dafa oor nga oor ca ngay yem kon yonentu saa salaam war ngaa fexe xam nam oore woon lam lam doge woon lam xëddee woon lam lekkoon fa ko defee woon dëkk ba ko defee woon waxtu mu ko defee woon su fekkee moom nga yoree rek loolu dafa war a ñëw waaye yonentu saa salaam dafa bëgg a ne sama bésa juddu bés bu màggal la bu ñu war a màggal mu joxe ci ndigal rek loolu izn la xam nga ndigal léegoo léeg mu nekk ndigal loo xam ne ndigal lu xaasa lay nekk wala mu nekk ndigal loo am yaa ngi wala mu nekk ndigal loo xam ne ndigalal tasxiir lay nekk waaye ndigal gi yonent yàlla ma salaa salaam joxe joxe foofu ne defee leen ko comme ni ma ko defee mooy fexe leen ba bu leen ci boole loo xam ne sariya daf koy aaye loolu wax ji loolu la maanaam màggal gi ngeen may màggal bu leen ci def lu sariya def leen ko comme ni ma ko doon defee te yonent yonent salaa salaam lan moo nekkoon ci jikkoom alquran jëfam lan la woon alquran sayyidatuna Aïsa bi ñu ko laajee yonentu saa sallam def na woon yonentu bi daal jikkoom mooy alquran juy dox yonentu saa sallam alquran la kon bul ci def lu génn sariya loolu mooy def leen ko comme ni ma ko defee ndax lim def génnul sariya or génnul sariya yaa ngi dégg parce que or benn pilier ci l'islam la tudd yàlla pilier la ci l'islam euh, génne saraxe génne asaka pilier la ci lislaam aj màkka pilier la ci lislaam kon comme jël na benn pilier ci lislaam dugal ko ci màggalee ko bésu juddoom daf ñuy tegtal na li des yëpp ci pays pilier lislaam yi valable la ngeen def ko ci léegi nag ku yàlla mayul tawféex yow da lay tëj parce que yàlla ci alquran moo ñu jàngal sumun bukk mun xom ñun fahum laa yaqiluuna duñ xelu parce que ku yàlla ubbilul sa kuñ déconnecté woon munoo connecté wu loolu mooy hadis bi hadis bi yonent jëf na ko ne defee leen ko nii mooy teg leen seen tànk si sunna bu leen génn sunna su fekkee gàmm boo dikkee dañ lay fàttali juddoom wax la julli loola ci yonent bi génne loola sa xalal joxe loo ko miskin yi gan ñi nga teral leen ndax yonent daan teral gan ndax jikko yonent saa salaam bokk na ci xaaroo raay bi mu demee foofa di màggal yàlla di julli foofu di fàttaliku yàlla te loolu danaa ci ñëw di fàttaliku yàlla bi ko Jibril dikkalee bi mu demee ci ndey Xadija bi mu koy dalal def na ko yow da ngay teral gan ta gàmmu bokk na ci gan ñii ñëw dañ leen di teral kon defee leen ko ni ma ko defee loolu yonent defoon na ko dalaan teral ay gan kon suñ ko defee ñu ngi def ñu ngi def ni ko defee yaa ngi dégg defee leen ko nii ma ko defee ça ne veut que ci koor rek la ñuy def ci la ñuy yem mais sele joxe alal yonent def na ko kon ñu koy defee ni mu ko defee jàng julli ci fàttaliku yàlla yonent def na ko kon ñu ngi koy defee ni mu ko defee parce que am maanaa hadis bi da koy dégg taawil da nga koy taawil pour mu nga mën koo dégg moo tax ñi nga xam ne yàlla may na leen tawféex ku mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mi dégg gàmmu nga xam ne li mu réussir ci liggéey yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci gàmmu la ko jaarale li gàmmu indi ci l'islam dama ne koor julli indiwu ko ci l'islam kon gàmmu nit ñi war nañ koy def bët bu set waruñ koy xaar sax at ba at ndax xëy na ni àddina tëddee la ak ni jamonoy mel waaye gaño war a gàmmu bët bu set ndax yonent saa moo wax ne defee leen ko ni ma ko defee kon nag nañ ciy julli nañ ciy naafila ci biir guddi gi ndax yonent da daan taxaw ni naafila ba bët set kon suñ naafila defee nañ ko nim ko defee suñ ci joxe suñuy alal yonent da daan teeral ay gan ba Xadija ne ko yow jinne du la jàpp ndax yow da ngay jokk bokk yow da ngay saraxe yow da ngay ganale gan kon suñ ci gan ñi ñëwee ñu ubbi suñuy néeg jox leen comme ni seriñ bi def nii jox ñu këram kon defee na ko ni ko yonent defee loolu dama bëgg gaa yi ñu xam léegi ah, wax dafa jot parce que ñun war nañoo woon gaa yi ne leen yàlla ñun la àndal parce que yàllaa ngi ànd ak ñi koy tudd waa àndut ak ñiy yi ci yàlla lislaam bu njëkk soo ñëwaan bëgg a dugg ci lislaam da ashadu an laa ilaha illallah wa wa annaka muhammad rasulullah soo ko waxaan rek wa ashadu an muhammad rasulullah soo ko waxaan rek julit nga waaye léegi tey wax ko junni yoon taxul ñu def la julit kon xam nga gaa yi ñu ngi jafeel te yonent aaye woon na ne yombal leen bu leen jafeel kon xam nga wéyewuñ sunna sarax sarax dafa foor ci lislaam doo mës gis ñoom ñuy saraxe parce que buñ ko defee dañuy def lu baax ci lislaam te duñ def lu baax mu kaafaat lu bàyyi wax ci réewul adab bi ne day kaafara bakkaar seetlul leen ci jumaa yi su ngeen bokkee ñoom julli suñ sëlmalee duñ la nuyu yow duñ joxante loxo duñ mu kaafaante ak nit ñi parce que day bëgguñu se dañ leen di te wan loo dañ leen def noo xam ne ñoom seen bakkaar yi du leen teggeeku seen tiyaabo yi du yokku parce que ñi leen yar ay noonu lislaam lañ mais ñoom xamuñu idéologie ñi leen yar ndax bi ma bi may dem madina Madinatu Munawara di aji Makka ki ma daj toogal ci avion bi quatre six heures de temps ñu ngi koy waxtaan di ka Dakar ba Istanbul ñu ngi koy waxtaan ci ci diggante gis gisuñu lis gis gisuñu lislaam ci doomi lislaam yi ma koy wax ba moom ci jëmi boppam mu ne ma dëgg-dëgg jàngee naa ci seen waxtaan yi loo xam ne sama dégg-dégg mu si ta àgg ba ca lañ eggoon tax ba ci madinatul munawara ak li nga xam ne mooy ka euh, euh, makka mooy kaaba ka fa nga xam ne fa ba nekk ma ne ko euh, naka la demee diggante makka ak medina seen i mu ne ma alquran de yàlla wax na ci ne makka boo fa jullee yàlla dana la defal junni téeméeri junni rakka ak mat makka moo gën madina ndax yàlla ah makka moo gën madina ndax yàlla wax na ci alquran yaa ngi dégg waaye madina soo jullee ci jul jumaa yonent bi junni rakka ngay am ma ne ko d'accord naa waaye faw am dégg-dégg ndax ju téeméeri junniy rakkaa ngay am boo julee ci masjidul haram ci téeméeri junniy rakkaa yi feneen fudul foofu maanaam mu ngi mel tey soo julee benn rakkaa ci masjidul haram mooy Kaaba ga yàlla dina la bindal fii tiyaabooy téeméeri junniy rakkaa soo jullee téeméeri junniy rakkaa ci senegal mu ngi soog a tolloog benn rakkaa ci masjidul haram yaa ngi dégg léegi masjidul euh, rasul soo fa jullee benn rakka dafay tolloog mill rakka ma ne ko waaye tamit loolu il faut nga am tawféex pour dégg ko de mu ne ma mais loolu amul lu ci dégg yàlla wax na ko moom leer ma ne ko waaw waxu yàlla moo tax mu laaj dégg yàlla waxam du ko n'importe qui moo koy firi mu ne waaw ma ne ko xam nga pound 1000 pound ak 1000 ak se boo ko 1000 pound boo ko ñaata 1000 lay nekk dana ma téeméeri 1000 pa 1000 Sénégal. dina ma téeméeri junni mille Sénégal fii dina ma téeméeri junni Sénégal fii te pa mille pound la rek ma ne ko téeméeri junni ba rakkaat ci masjidul haram moom la nit attan waaye téeméeri junni rakkaat ci ca masjidul rasul nit attanu ko moo tax ñu def ko mille parce que suñ ko defee mille da mille bi day tolloog téeméeri junni yi masjidul maram masjidul haram parce que fii la yonent bi tëdd fii la central bi nekk bi markasil fuhumi wal ma mahaani markas bi foofu la nekk kon kii mooy tëbb kële kaaba gi yonent moo koy tëbb kon boo ñëwee ci cap de bus nga jokk fa fiil fil est-ce que dina yem ak nga ñëw ci poto làmp bi jokk jokk fa sa ah, du yem kon fële boo fa demee dañuy wàññi voltage yi sinon da ngay da ngay da ngay seey ah? kon suñ la waxee ne la benn rakkaa dana wecceeku téeméeri junni rakkaa dëgg la soo fa jugee ñëw loo doon def benn da nga xam da doon def junni fii da nga lay nekk ci yow parce que ne junni junni boo fi def rek téeméeri junne la fi war moo tax kuy foxee l'islam sensu l'islam jotagoo ci kon l'islam bi yàlla indil ñu muy euh, mawlid yi rasul sallallahu alayhi wasallam màggal juddu yonent bi lañ doon wax màggal juddu yonent bi nag dafa bari ay ngëneel nit ki nag su fekkee yàlla mayu ko tawfiix pour mu mën a xam lislaam ak ay ay ay njariñam ak ay ngëneelam mën nga toog jàng say ay hadis jàng say téere jàpp ne yow yaay borom xam-xam bi wala nga jàpp ne yow kile ci ki ngay ci ki ngay euh, euh, jëlee foofu rek moom mooy dayo moom mooy ba mooy mooy fale mooy xamuwaay ba fekk yàlla may na keneen loo xam ne sax yëgoo ko te yëgoo sax na may nga am na te sax binduñ ko ci hadis binduñ ko ci aaya te yàlla moo ko wax ittaqullah wa yuallimukumullah soo ragalee yàlla yàlla xamal la lam lay xamal dafay gën a lam lay lam lay xamal aaya ak hadis da cay wax dafay nekk loo xam ne bu bu la ko xamalee danañ ko mën a delloo ci aaya delloo ko ci hadis mais du doon la hadis ak aaya di wax pour ñu mën a xam ne lu jógee ci yàlla la parce que hadis ak aaya peesekaay la balance la bu ñuy peesee waxu yàlla ndax wala lu luñ indi ñu mën caa mën a xamee ne lii ci yàlla baye ko moo tax ñu jëfandikoo aaya ak hadis mais hadis ak aaya yonentu la ko yàlla joxoon rolam jeex na kon buñ ko jëfandikoo pour mën cee peesee suñuy wàccuwaay la mën cee delloo suñuy mbir la kon lislam dafa am ay xóot-xóot yàlla wax na yonent yàlla Muhammad salaa salaam dinaa la nettali xissa yonent yàlla jiitoon pour nga dëgërale ko sa xol ci gëm yàlla léegi bi ñu may invité ci plateau télévision bi dama ne loolu aaya boobu gars yi ñu ngi koy wax rek Cheikh jot jotali nañu ko mais sens bi dëgg dégguñu ko yàlla ñun lay nettali xisa yonent bi pour ñu mën cee dëgëralee suñu xol ci gëm yàlla mais pas yonent bi ndax yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam ci moom la gëm yàlla génnee yonent lu muy doyee gëm yàlla yonent la may ko yonent yàlla ma ne lépp lu mu ay yonent bi ne lépp lu yàlla man la ko may walaawul mooti allaahul mooti wa anal xaasim yàlla moo joxe maay séddale kan moo koy dolli leen na yonent lu mu soxla yonent soxlawul ndollal de ah donte sax wax na ah, ah, ah, wax na Euh, rabbi zidni alman wax na ko de waaye ci kaw euh, ñaanal ñu ko ñun waaye pa moom ndax xam-xam lépp yàlla ci yonent la ko wàccee ñi xam yëpp ya yonent moo leen jàngal te moom lu muy la bokk na ci li ma doon wax léegi ne danaa ci ñëw mooy askar wirde yi ngeen doon def léegi danaa leen ci gën a encouragé ngeen gën cee mooy ngeen xam ne waxtasimu bi hablillahi jamian walaa tafarraqu gu yàlla wax mooy askaaru zikr gis nga ñiy sikar ñëpp ñoo bokk benn pas-pas seen xol daa set dañoo rafet njort dañoo bëggante dañooy dañuy dañuy dañuy dimbalante dañuy ñaanalante dañoo am xol yu yaatu parce que waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu sëriñ bi ñoo ngi lay